téléspectateurs Leral TV ñu ngi leen di nuyu am mbégte ak contentement di ànd ak yéen seen émission Leral People tey nag Leral People boo ko déggee dañuy waxtaane lépp lu jëm ci actualité people fii ngeen ko mënee am en temps réel ma si ànd ak mon ami mon frère mon très cher Cheikh Mbacke mu wàlli Cheikh Mbacke nuyu naa la am mbégte ak contentement di ànd ak yow fii ci sama émission sama jigéen maa ngi lay fay ki nga jàkkaarloo nii mooy Cheikh Mbacke bu wàlli Balago Seck international sénégalais taalib bépp Sëñ maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa leeral. Mhm. people leeral people. maa ngi leen di noonu laa ko mën a waxee. géwél la déedéet da koy wax wax ju jub. nii laa koy waxee xam nga commencé nga te tey tey ngay doyal. maa ngi leen nuyu bu baax waa leeral people ah, yéen a jàkkaarloog Cheikh Mbacke Bouali Balago Seck ah international sénégalais taalibe Sëñ Touba maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm ci déplacement bi ngeen ñëw fekk ma fii. tiitar bee bëri kontaan naa bu baax ci yéen di kontaan sama jigéen journaliste day jongoma. Mm, man damaa jongoma nag tey ma neex. te dama ànd ak yow sax si coupe bi. gisoo lug bi. <laughs> non tey dama ko takk nga war a kontaan. non tey dama ko takk kontaan naa. Mm, di nuyu waa bi yëpp. di nuyu sama xarit bu baax bu ñuy wax Doudou Faramareen. Mm-hmm. waa di nuyu ñëpp kontaan naa. di nuyu sama patron sama mag sama xarit Waly Balaab. moo mi waral lépp. donc mon très tey mu ñëw ànd ak sama équipe ñëw seet si la donc tey dama li may njëkk dugg ak yow si bi mooy ku bëgg a xam tey kan mooy Cheikh Mbacké mu Wally en fait. waa Cheikh Mbacké benn xale la bu dëkk région Diourbel gëm boppam am jom am ngor am fulla xam li mu doon dem nekk doom buur géwél mhm. kooku mooy Cheikh Mbacké kooku mooy Cheikh Mbacké xale bu bëgg lu baax ku gëm boppam ku am valeur ku mën a solu lool ku civilisé lool ku bëgg sëñ Tuubaa fonki waajuram koo koy Cheikh Mbacké. ah loolu neex na te dugg na ci xol donc moo très cher tey ma bëgg la laaj ban année nga ñëw Dakar ak en plus lan ngay def Dakar. <laughs> damay sàcc. da ngay <laughs> boo xoolee ku mel ni mën naa ma lan ngay def Dakar doom buur géwél bu toll ni man. mais dama la laaj Dakar bi ñu fiy ñëw dañu fi am sunu magu yaay bu fi nekk ku ñuy wax wala yàlla kenn yàlla na ko yàlla yërëm ak sama mag bu jigéen bu ñuy wax Ndeye Marie Faye mi ngi ci Pikine ginnaaw raay ndax bi ma ñëwee ci moom laa nek mhm. waaw ma nekk ak moom ñuy dund aar yàlla boole ma ku ñuy wax Mbacke seen frère Yves Niang la mi ngi Finlande maa ngi koy nuyu bu baax mhm. xam nga di benn grand bu ñuy wax Langous ba mu ba tey ñëwul waaw di nuyu Amet Thiou. <laughs> bëgg mu <laughs> ñëwaat Amet. mu ñëwaat Amet Thiou waaw namm nañ ko lool. mu ñëwaat xel mi <laughs> mu ñëwaat. waaw sunu grand la ma koy tooñ di ko koy nuyu bu baax a baax. waaw kooku daal mooy si Mbacke ki ma la wax nii mooy. Cheikh Mbacke donc mon très yow à fecc kese lan ngay def leneen. waaw mais aar fu mu toll nii foo ak fecc rek la ñuy def. mais buñ xuusee ba ci biir bëgg nañ yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen xalaatagoo def ndax góor non xalaat ankay en ce moment ngay def non ubbi woon naa place ñu lekk ko ma tëj ko ubbi woon naa place ah, jox ko nit mu liggéey ci mu lekk ko ma tëj ko bu ma gisaatee keneen ko am jom nag xale bu mm-hmm. nangoo liggéey te am jom moo ubbiwaat place jox ko ndax yemuñu ci ay fecc ak ay wayak yooyu kese am na lu leen opté am na leen yoo xam bëgg nañ waaye yooyu mi ngi nii ci kanam di ñëw mi ngi donc mon très cher donc yow ngay def waale kese ngay feccal wala am nga yeneen artiste yoo xamante ne artistes yu nekk fii yaa ngi leen di feccal en même temps wala si waale kese ngay yem. soo ñu si mënoon leeralal waale kese. mooy waale kese. waale kese la vie ou da nga wax ni parce que télé toog non non la vie ci sama àddina. Uh-huh. non man dawuma dara. Uh-huh. ay wax yooyu man sama xoolal man waale kese la waaw loolu laa bëgg waali kese la moom rek ngay feccal non xam nga li ci des lépp yàllaa ko xam mais sama mébét sama mébét uh-huh. ak li ma bëgg mooy waali kese waali kese waaw ndax moo ma doy jikko moo ma doy yaram moo ma doy ni mu mel moo ma doy man doom buur géwél laa ku ma ne yow la yow la rawatina ma nekk bawal bawal ku ma yow la yow la ba keroog nga may wan leneen may noppee wax yow la mais daal jukko mhm. ak ànd mhm. ak lu rafet ak bëgg waali laa ko def te moom laa fas yéene àndal moo ma doy moo waali mais à part waali mosoo feccal keneen non à part waali bi ñuy doog a débuté aar yàlla présenté euh, boole woon na ma ku mel ni Pape Diouf mhm. Pape Diouf mareetu tuun moo tax ma xam ko mi ngi ci Pikine ginnaaw raay waa ginnaaw raay bu ñu ma déggee dinañ xam li may wax bu baax Pikine ñu bu baax waaw xam nga ñu fay na di taqale waaye daal da dëpp gi mhm. ki réew mi di wër ak ki réew bëgg ah. dama yàlla booleel yàlla suñu ànd bi ñu ànd ba àjjana mooy waali ba laal d'accord mon nañ ko kàddu yi rafet na te yàlla la yàlla moom ba si kanam kanam waaw bu ma fenkat yeeg duukat yi moom mhm. ah waxuma <laughs> leen nag yaa leen wax maa ne bu ma moom ak ñuy duul ak ñuy duul kan exemple rek xam nga na ànd boo gis am na ñu ko bëggul waaw da nga bëgg bu neex man ragaluma non amul ragal non dama ne waaw dama ne ñi nga xamante ni ñoom buñ ma bàyyeeg waale jikkoom ni ma bëggee ak ni ma ko bëggee ak suñ dëgg suñ bëggante man ak moom ni mu dëggoo ah mhm. bu ñu bàyyee rek dinañ yàgg ba àjjana ndax daa baax ma baax mu bëgg ma ma bëgg ko waaw si biir foofu interpellé la sax en fait doguma la mais est-ce yow fecc bi ngay fecc fii yaa ngi si gis sa bopp en fait nan gisee fecc mi fii dugg nga sama kër sànq xool nga ma ni ma toogee xool nga ni ma mel. man xamaluma la dara. waaw non non non mais non non non non non. nii naa laa jugé ne bi ngay ñëw xam ne am. naa la jugé boo ma xoolee xam ne maa ngi sant yàlla di sant yoon bi ak sëñ Tuubaa sama <laughs> ma la hmm. <laughs> déggoo yow loolu kay xanaa wax dëgg yàlla boo ko waxee giir sax mu xam ne ma dama ne la. Mhm. sant yàlla. Mhm. ñu moom lépp ngi sant yonenteem ba ñu ngi sant sëñ Tuubaa sunu sëriñ bu baax yàlla nag bu dollee gën a dolli ñu gën a jël mais ñu ngi koy sant. ñu ngi koy sant kaasee waaye ku koy guux ku xëy guux si boobu noonu ma fekk la si en fait euh, yow fecc fecckat yi nekk fii ni en fait di fecc sa sa rapport ak ñoom sa digganteek ak ñoom mooy fecckat yi est-ce que sa diggante ñoom demee na noonu. waa demee na noonu kay ndax ñoom ay fecckat lañ xam fii ñëpp mbëru làmb yaa ngi ànd jour yaa ngi ànd ñeneen ak ñeneen lañuy ànd fecckat dañuy ànd. fecckat dañuy ànd waaw fecckat dañuy ànd ñi ma ci bëgg bëgg naa leen. ñi ma jàpp ne bëgguñu ma ndax jàpp ma ne kenn bañ na ma sax bëgg naa leen waaw ndax àddina ñëpp ñu la bëgg waaw joueur yëpp bëggante wuñu mbër yëpp bëggante wuñu ku ci mel ni jàpp yéen ñaar bokk seen wesu fois waa moom sama xarit la sama xarit la sama fils la sama waay la nit ku baax la baa yëg nga ni moo jël meilleur danseur 2023 mën naa jël lu nekkul loolu ah, yow loolu ndax kaw la la non noonu non man fecc meeg yooyu jàpp sama fils la du ma concurrence tey ay jàpp fecc pas concurrence en fait non non xaaral ma wax la benn affaire man maa ngi gagné. xam nga yow da ngay fecc muy fecc man xam nga ki ma nekk mooy meilleur waykat. waaw xaaral plus moom muy fecc ah moom mu jël meilleur danseur. te yow nga waroon ko <laughs> jàpp moo ko jëlee bakkan <laughs> jëlee ma bakkan fecc bi. jëloo ko bakkan <laughs> non te nga ni yow en fait. moom mooy sa non non boo gisee jëlee ma ko bakkan mooy da ngay déglu ñu waxtaan. amul problème moo faat. Euh, jëlee ma ko bakkan bi boo ko déggee mooy aar ki ci doog a dugg rek moo koy jëlee bakkan man jëlee ma ko bakkan aar dañ ci fo rek aar kaf la agréé aar da ngay foo kaf ree pour mën a bégal ñi ngay jàkkaarloo ndax boo dul ree ñi ngay kon jàkkaarloo duñ bég waaw man réew mi gisuma ci commencé dàq fecc am na ñoo xam musique lañu man damaa boole fecc bale danse classique danse contemporain du ko ñëw ci la ba ma xoolee bu may lalli da ngay gis bale ci sama fecc waaw yaa may dégg bu baax man tey bu jëmbee noonu para bi biri baraba hmm. bu ma bu ma la rombee da nga naan kii du Cheikh Mbacké kon man concours maag benn fecckat fecc gis naa la Bercy euh, Bercy Saloum <laughs> déggoo sama waay la fi mu nekk ah yàlla na ko fa ba lam fay mos moo ko xam waaw man fi ma nekk waaw mm. ah, fees na ma bay tuur doy na ma sëkk waaw wax dëgg yàlla jàpp concours ma ku jàpp ku jàpp sax concours ma moom fecc non maa mag loolu léegi nag ma ma ñëw ci sa sa xarit sa doomu ndey Wally mi ngay safoo mi ngay bëgge Wally mi génnee en fait album albumam bu bees bi nga yaakaar ni Wally albumam bu bees bi mën na si am disque d'or comme li nit yi di wax waale lu dul disque d'or mën na ko am xam nga su ma déggee ku naan ma sax ay waale ndax dina am ku dul disque d'or waar de kañ la dugg ci way 2009 mhm. la commencé ci way ba ñu ngi ci 2000 lan 2023 ñu dem ba koy dëkkaleeg waykat bu ne ci àddina kon joob na ci lim nekk ay wax mayewu ko ay nelaw mayewu ko dibi daa mayewu ko waale joob fi mu toll ni état bi mu toll ni liggéey ko fi mooy seul waykat bi dégg lu ne ci àddina te taxul mu bàyyi waale mooy seul waykat bi nga xamante ni dégg na lu nekk lu ne wax nañ ko ko raful arrièreul ba tey jii yaa may dégg baax kon Dix Lô lu tuuti la ci wàll man Wally boo gisee keroog bi ma ko bi ñu demee bi ñu dem Paris ma ñu dem ba aéroport ma yóbbu ko dama ne ko li ma bëgg mooy bëgguma dàll bëgguma yére bëgguma téléphone bëgguma dara Dix Lô bi laa bëgg ma Cheikh mu ma mu ma na ko kooku neex dafa gëm lu muy xam am mbër yoo xam ne neex a faral dimanche Wally neex naa faral te ko ànd ak moom doo rus Dix Lô moo gën a tuuti li Wally di am hmm. nit nag bu fekkee da ngay dund daal ne am na loo xam lii daf laa jomb lee jomb li nangam na bu yeboo nga bàyyi li ngay def ah, waaw da ko war a am da koo mérité ndax li mu dégg ci musique Sénégal fii kenn dëkku ci waykat li ko wax ci musique kenn wax ko kenn wax ko fi waykat wax nañ ko lu ñaaw lu ne mu gëm géré ba tey ji ña doon wax sax di ko wax lu ñaaw ñoo nangu tey ñooñu ñoo nangu tey waaw ñooñu tey ñoo nangu tey kon Waly lig si door lu tuuti la ci moom Palatine lu tuuti la ci lépp lu yàlla damay ci aar Waly dina ko am maa la ko wax tey def ko jàpp ko bu baax Euh, donc léegi moom lu tax mu dem ba Europe ñu koy produiral foofu lu ko teree mu mu produire su albumam fii nii wala dafa xeeb producteurs yi nekk fi wala dafa am leneen lu muy wuti Europe loo xamante ni amu ko ci dëkkam. waale xeebul kenn yow mi boo ko waxoon tey sa wax sa xalaat da koy téye waale xeebul kenn yow soo ko waxoon sa xalaat moom waale da koy téye day xool li ko neex. ak li baax mu jël ko waaye du dàq kenn du ko di kenn waale xeebul fi benn producteur naan damay dem ba Paris dafa fekk ne Europe ñoo la mën a yóbbu ca kaw. ndax label bi ko produire mu bi Europe Paris lañ nekk. Paris lañ nekk waaw. waaye xam ne wasaare du fi am label bu toll nii Faramaren Papis Ndiaye jiite ko muy xeeb kenn waale xeebul kenn studio yu bari ku mel ni Lamp feneen waale enregistré na fa album kon xee kii xeebul kenn li may ñaan daal li mu bëgg rek fële la ko mën a amee waaw non non mais xam nga tey yow am na loo xamante sax yére bu baax boo koy jëndul da nga naan am na say nijaay yu ne Amérique wala France wala Italie wér faylaanu fu mu mën a nekk da nga nijaay li may léegi ko fii ci bitig fi amu fi jëndal ma ko foofu ku mel ni bitigu mbay saw fii ma toog ni tey mbay saw nga bëgg ay yére boo ñëwee ci mbay saw gisoo ko da nga naan ah xaar ma woote turki wala feneen ak feneen la feneen noonu rek la demee waaye xeebul kenn liggéeyee ko ñor te mi ngi ci mi ngi ci d'accord moom xëy waaye yow yow tey lu ko mel ni comme waale tournée yu muy def yi Europe tournée internationale yi lu su mel ne don de Paris bi passé donc ñu gis fa ñoom fecckat yi ñoom Amady Badiane xam nga ak ñeneen ak ñeneen yow kenn gisu la fa lu doon tey ji moom très cher nga dem Europe fecc wane sa talent yow ñu lay gis comme si spectacle yu mel noonu. Europe moo gën a tuuti ci fi ma war a dem. Mhm. <laughs> Europe moo gën a tuuti ci fi ma dem ay nit a fa ne nit laa waaye man dama amoon benn problème mu doo muy passeport problème mu kayit. Mhm. waaw même bu ñu ci dindee problème mu kayit bi ma amoon sax lu jot rek day yomb lu jot day yomb. waaw lépp loo xamante ni war na. da nga amoon problème mu kayit. moo tax mënoo nekk di voyage. mënuma mënuma woon di voyage sama passeport dafa réeroon ba pare année bi ma juddoon ma fàtte ko. année bi ma juddoon nga fàtte ko waaw non géwél laa jàngu fay na ma sama xol yi may bëggoon yëpp mi ngi ñëw waaw sama kayit yi may defarlu waale ma ko defarloo waale àndewuñ lenn lu yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak bëggante nit boo ko bëgganteeg moom lu ne mën nga koo am ci moom booyu ànd nit bul foo bul nekk fenkat bul bul bu mu la may teraangaam léegi léegi léegi nga tourné di ko xas wala man andiwumaa loolu waale waale réew Sénégal xam nañ ne ku tudd waale bu ma yegsee Cheikh Mbacké di nga xam ne di nga noppi wala nga xool noo def koo doon nag ku bëgg waale ma bëgg ku bëggul waale koo doon bëgguma la del naa dem ci yàlla di ñëw bëgguma la ah. ndax man non non sa mm-hmm. koy bëgg mm-hmm. sa nit da nga koy jàpp sa nit da ngay ànd ak moom yàlla rek tax sa nit xool naan naa ko wax pour ma may ma lii nangam nam fii koo ànd xam na ni mu ànd ak yow ku ànd ak yow am xamul nu ngeen àndee léeg benn xale bu jigéen nopp la da koy iri rek foog ne daa ñàkk fayda fekk xolam rek la dala waaw na gaa yi ànd te yàlla rek tax jàppante yàlla rek tax maa waale sunu ànd dama koo jàppante yàlla tax barki si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul Cheikh Mbacke Waale nekkul maa ko créel sama bopp nit ñi dem ba sa Mbacke Waale gi law ba ñëpp ne sa Mbacke Waale ba mu nekk samay kayit kon waaw dama ànd ak moom rek nga nangu mu nekk sa ay kayit loolu dama ne la àjjana mooy mhm. dugg bu ma yàlla newoon koo fi bëgg a nekkal ñi may lim waa dina ci bokk man bawol bawol laa ñun duñu fenn duñ duñ jaxase duñ topp kenn pour dara mhm. yaa ngi dégg bu baax li la expliqué dama gëm xam ne dama gëm sama bopp boo ma xoolee nga xam ne comprimé gëm sa bopp benn la woon maa ko naan dafa dooj Cheikh Mbacke dafa non non non am naa tuuti dooj am naa tuuti dooj ndax géwél la damaa civilisé damaa dooj damaa mën a sañ sa lool barki Cheikhul Khadim réew mi kay doon bu nee la Cheikh Mbacke ngi ñëw di xam ne maa ngi ñëw waaw waaye daal waa Lat Diop Degen Baye maa ngi koy ñaanal jàmm te di ñaan yàlla mi nga xamante ni moo xam lépp di gis lépp borom bët bu rëy bi ah mu defal lu jàmm rek defal ko sutura li mu bëgg mu am ko li ma bëgg mu am ko ñu doxal. d'accord mon très cher waa tey yow léegi ñëw Omaro en ci biir Faramareen lan la la def. defuma dara xëy na wërsëg moom fi nekk rek mu ñëw lekk si ko xam waal géej la daa yaatu géej la géej soo géej bato bu nekkay daw <laughs> géej bato bu nekkay daw gaal day daw bato <laughs> daw gaalu loo cay daw te taxul mu jeex fu ne am na tefes <laughs> waaw Omaro xaj na yàllaa ko def la am na lu wërsëg bu nekk ci waali waali tamit teewul wërsëg bi di ko jox loolu kese la mais man xooluma ko dul Omaro sax xooluma ko ci dara man kenn laa visé muy laajte jigéen mbaay muy waali kenn ñoru même Ndeye Ndiaye mi ñëw sama jigéen la mooy li ma la wax rek eh mais sœur mi foofu waa kaay wax la yéen waykat yi sax da non non dama ne Ndeye Ndiaye Banaya bi ñëw foofu ak sëram waa moo tax ma ne la loolu lu rafet la rek wala famille la boole téye leen mm, Ndeye Ndiaye olof Ndiaye nee na ñaari kuy mënuñu bokk gerte de waaw dama ne ankay ak awa mën nañu nga gis ay kuy yu yu bokk mbalka seen arrangement la yéen ni Ndeye Ndiaye ñëwee rejoindre ci man wala keneen ak keneen arrangement bi waali la Ramdan njiit bi waali la waali def lu ko neex suba suba waali mënoon laa jël donte boo mën ta way kenn du ci wax dara ndax waali la moom la yàlla jol jox yar bi téye ko yaa may dégg bu baax Ndeye Ndiaye ak Awa ay mag ak rakk lañ bu seen diggante ku ci ne parti ba ngay def ci waali please ma ñëw ku ci ne bu jotee def ko yàqalul waali dara ndax waali moo toll noonu waykat yu bari di nga leen gis ay biyantoo di nga si ñuy aw waali <laughs> waykat yor gu mm, moom ah la ma la ci woo barke ah, am na ñu bëgg ñëw de aw ko <laughs> defal ko première partie. ah yow di waay nekk nii moo tax nga leen di eh, may wax xanaa. Ah, ah, boo gisee waykat mel ci wàllu réew mi wax ma. waykat bu mel ni wàllu ci réew mi. xanaa xam nga genre wàll bi par siècle la ñuy <laughs> moo doomu ba yow. yow doomu baay baykat yi yéen a a xam lépp la moo tax rek ngay nekk fii nii naan non non oh, non yeneen chanteurs yi pourquoi ñuy bàyyi ñoom suñu xanaa dañoo gëmu seen bopp. xool di dem si ginnaaw waaye waaw balaa gis door bi di nga gis ne Chambaka waxoon na ko di nga gis woykat bu oh, awu oh, <laughs> <laughs> ah, na mais moom nañu fi yàlla gi bàyyi rek ñuy toog di xool donc moo très cher euh, ma dugg yow si sama beneen question bi ma la bëggoon laaj yow ñëpp xam nañ ni Ama sa xarit la Ama Baldé sa la te li jiitu li ëmb lépp yow ngay doomu Pikine. billaay waa LP yéen ñu lakkal xool leen kenn déggut li muy wax ñoo bon. ah xaara camion bi jàll ma tontu la bi jàll ndax danga maa laaj ci Ama Baldé. Uh-huh. xaara ma la Ama sama xarit la. Uh-huh. bi ma jugee Diourbel maa ngi nekkoon sunu kër ginnaaw raay maamoon benn gel bu ñuy wax Siré Jàmme ma nga dëkkoon Pikine bii soo ma ko daan gunge. ñoom Ama dañoo xam ne dama koo bëgg ba dañ may kukkali ci moom muy Ama Alaaji Mbay lon ah sama xarit ba bàyyi laat yàlla na ko yàlla jërëm yàlla na ko yàlla yërëm waaw Amaas sama waay la mu daanu Modou Lo daan ko Modou Lo mi ko daan. ci biir Modou Lo boobu nga wax jour combat bi na fu Modou doon tu tuusee ñu gis benn vidéo yàgg sa xarit Pawlish. waaw ngeen jug di fecc léegi geste boobu nga def pour lan la. waaw non non man dama bi may fecc. damay fecc Modou Lo sama waay la. Mm-hmm. Papis mi koy sotti gàllaaj ñoo bokk Sëñ Tuubaa. Moodu sama waay la Moodu xanaa xamoo Ama la sonal ma mais Moodu ma gën a sonal sax ni Ama man. nga Ama. Moodu. Mhm. man bu lamb amee wóoru maa faral kenn waaye dafa am ñoo xamante ne kóllëre la Ama su ma ko faralee kóllëre la waa Pikine suñu seetaanee dañuy xam te gaynde la nit ku am valeur nit ku gëm boppam nit ku mën a bëri Ama bu duggee ci làmb nga xam ne ku saf ku làmb saf ci moom mi ngi nii di bàq. ku làmb saf ci moom mi ngi làmb Ama bu génnoon ci làmb barki borom Tuubaa Mbàkke làmb lu bari mën naa deñ fecc nga doon mooy damaa xam ne ku ma xam a ngi nii ku ma nit koo xam dama ko bëgg a ngi nii mu bëgg ma mi ngi nii ñu yàgg lool mi ngi nii di bàkku mu dëkk Pikine man ma dëkk ginnaaw Pikine ay ati ati ati at xam nga Sénégal dañu foo Modou Lo am na ñu bari ñu doon yuuxu te faraluñ ko barke Serigne Saliou Mbacké Modou Lo moo la gën a xam ne faralu ma ko woon ci combat bi te fu mu fekk dafa may sonal su war a faral Modou Lo Modou keneen ku mu bënal ku dul Pikine wala ay amaak yooyu Modou laay faral ndax séq nañ jàmm te sama xarit sama xaritu xarit la Pape Aline Ndiaye Pape Aline Ndiaye da koo bëgg lool waaw xanaa xam nga bi ngeen gis ne ci làmb ak ak Modou boo fekk mu toog bokkul. bokkul ñaari ma doo ma bàyyi. lan demee combat bi maa ngi woon ci parkinam fekk écurie ñu toog ñu naan ma si Mbàkke daan nañ la may kaf ñoom ñoom Papis xam nga ñoom Modou Ba yàlla maa ngi leen di ñaanal jàmm ñoom ñëpp moo Lo keneen ku mu bëreel ku dul ama ah ay Balla Gaye yooyu moom lay faral ndax ñoo bokk fi ñu dëkkee yoof kii bi te wax dëgg yàlla man mosumaa gis ay reewandeem mag yi ñuy wax ni yëpp ci moom fu ma fekk dina ma tooñ galgal ma sonal ma dompat ma def ma yëpp kon Modou su daanee ama war na ko daan ama su daanee muudu war na ko daan làmb la xam nga làmb mooy dañuy làmb léeg-léeg léeg-léeg nga làmb daj léeg-léeg doo làmb daj ama dafa làmb dajul moo doo làmb daj kon muudu yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla defal ko mu gën a teral ay waajur donc nga doon fecc da nga doon fecc noonu rek waaye man géwél laa man damaa neex tànk man fii rek mën naa ne bëri toogaat mais Modou Lo doon tuus na jug fecc yaa non non ama bi muy tuus laa fecc ndax ama li mu bàkku dafa neex xam nga Modou li mu bàkku xam nga li mu bàkku bàkku laa ko kii Modou li mu bàkku xam nga fa muy bàkku Modou bu sañoon sax du fecc Moodu bu sañoon sax du fecc waaw Moodu bu sañoon du fecc maa ngi gërëm waa parcelle 1 ba 26 ndax dëkk naa fa moo tax ma ne la man damay mal placé pour wax ci affaire ay làmb ak ndax parcelle dëkk naa unité 21 suñu kër sama magu yaay bu ne xul yàlla kenn laa nekkal di gërëm waa ñu bëgg ma lool kon parcelle ku fa dëkk am jom da ngay am ngor da ngay am fulla Pikine ku fa dëkk da ngay am ngor da ngay am jom da am fulla yàlla moo defoon ñaari doomu Sénégal ñuy bëre kenn ki moo am kon mag yàlla jox na ko ndam yàlla na ko yàlla defal mu jig bu baax a a baax a amiin amiin amiin amiin d' accord donc mon très am na sax question boo te dama ko na fàtte et tout mais ñëw na di gërëm Baboy Saw Baboy Saw Saw papam di ministre Baboy Saw mhm. waaw sama waay la lu ma nekk mi ngi ca waaw xam naa ne bu nee naa la yi sax papam lay àndal fu mu dem ka mu dem Kaffrine fu mu nekk ma ànd ak moom Baboy Saw mbokkum doyum yërëm ak Duudu Farama ren Duudu xale bu baax la bu am jom am bu valeur teg fee taabalam di jaay dal deful bu ko neexoon mu def leneen moo nekk ne duud di gërëm waawe sufaar bi yëpp aca ñu dem loolu yàqul dara dama la ko doon dugalal rek amul benn problème ñu bàyyi la a tamit léegi tey ma bëggoon la laaj en fait yàgg Wally fan ngeen xamante non Wally bi ñu xamante wax naa ko waxaat ko waxaat ko ma nit présenté wu ma moo ma xool sama jikko doy ma mu doy ko mu bëgg ma mais fan ngeen xamante en fait place euh, Makan Mbaye waaw loolu laa bëggoon xam jàmmalaay place Makan Mbaye Makan Mbaye jàmm laay waaw. da ngeen gisante noonu rek. waaw xamuñu xamuñu nar a ànd. foofu ngeen gisante pour la première fois. non waaw nekk fa première fois déedéet fekk na ma fajaa kër ala euh, kër Alaaji Mor Dior Seck maa ko Papa la ma Amérique fekk na ma fa. fekk na ma fa waaye daal su suñu liyeen waxtaan gisante mu jël ma yóbbu ma këram jàmm laay la xewee. jàmm laay la la xewee waaw. d'accord mon très cher. donc xam naa mu jëntal question bi ma lay poser rek su ko defee ñu mën a tëj émission bi ndax bëgguma mu gudd en waxtaan bi nag neex na doyalu ma si yow franchement parler mon ami mon frère gis naa ko mën jaay preg nga. non yow jaayu ma la dara simple dara dama la rus. simple yow da nga ma rus yow simple moom ñaanu ma ko sax yàlla def. Ah. tubaab moo ne la simple pour les faibles. Ah. waaw man faible ma. faible waaw. faible ma yow damaa bëggoon sax boo ñëwee fekk ma takk jaan jiy def ay yëfal. mais kaa defoo ko. mais mais wuy ma. lu bon. eh lu bon. lu bon eh, lu bon li yëpp weesu faar dégg nga xale yi. xalil lu bon. yaa bon. lu bon bon. bu ma sa baaraam bi mangu ko. mais sama rakk la xalil. kaay. xam nga ko ah. moo nekkoon faram ah, ah, booy Balago Boys. waaw sama rakk la xalil. waaw xalil nga def ça ngi si jàmm. sama waay la. sa feer lu fi xew lu bon. kon fii lu fi xew. bon naa bon naa bon. sama rakk la kontaan naa. kontaan kontaan naa kontaan naa di gërëm waa Oussefane di gërëm mbay saw sama mag la jaaykatu ah. yére bu mag bi xam ne ñuy jaay yére yëpp ci ma ñëw mooy tuumaal te bu beneen yoonee sax ah, dama ko wax mu jox la yére ah, waaw beneen yoon dama koy wax mu jox la yére Mbaye Sow sama mag la di gërëm waa LP di gërëm Oussefane bi yëpp di gërëm yàlla di gërëm yonent bi gërëm Serigne Touba sénégalais yëpp ñi nga xamante ne jaar nañ ci gaal gi wala ñu dem da dugg mbëkk mi xaw ma leen ak ah, Nicaragua lañ koy xaw ma. waaw mënu koo wax. yow demoo xanaa. non man de. rey naa ko <laughs> xaw ma Nicaragua la tudd xaw ma. mën nga faa ah, gis naa jigéen ñuy dem. gis waaw doo <laughs> yow yow lay <laughs> xam nga maa ngi gërëm yi nga xamante ne ndeysaan jaar nañ ci gaal gi. Ah. seen i waajur. Hmm. maa yi nga xam ne Nicaragua lañ jaar du na leer micro grouloir. micro grouloir micro mi ngi nii mënu ma ko wax maa ngi leen di <laughs> gërëm ñëpp yàlla leen yàlla defal jàmm ngeen egg ci jàmm te ku ci nekk <laughs> oo eggee jaar fi nga jaar boo eggee am jom xool fi nga jaar nga jaar jaar ci gaal gi soo eggee foo dem yaa xam waaye na nga xam ne waa gis naa ko ah gis naa loolu lépp waaye dama leen di ñaanal xam tax am naa ci rakk boo xamante ni sama doomu baay la ma nga jóge Jurbel jour tam xarit ba tey mi ngi ca Kanaba ah, barki dem boo Njaay ñu ne ma 4 millions lay fay pour jóge ci camp bi metti na muy ndongo mbub ñu bokk papa man ak moom alaaji ndende mbubay sunu baay maa ngi koy ñaanal yàlla ak yontu ak sëñ Touba ndongo mu génn ci camp bi commencé liggéey yàlla def ko mu teral boppam teral ñi nga xamante ni bëgg nañ mu teral leen waaw waaye daal maa gërëm bu baax waa Sénégal di gërëm sama patron Waly Ballago di ko ñaanal jàmm gudd fan wér xamal ko ne ko nitu jom la nitu ngor la di ñaanal nag nam naa koo xam ne dama ko nam lool sama yaay la ma koy wax ni pour mu xam ne soxnaay dara madame Seck waaw yaay soxna yàgg nga kër gi wéet na barki borom Tuubaa maram ñibbisil waaw kon nag soxna bu la déggee yaramam dafa war a ñëw na dama ko nam soxna reetaanam rek laa nam Cheikh Mbacké daal di ree xam nga dama ko bëgg a ñëw tere mais soxna la dàq waaw ma dàq ndax xeesalam la mel ma sama xeesal la mel naar la Serif man may naar loo ma yaakaar <laughs> ñoom rek moo <laughs> su ma la waxee sama sama sant nga noppi su ma la waxee sama sant nga noppi te mu ne ma ay dara ay dara ma eh, ay sama sant dàq ay dara ay sirif sama sant moo dàq ay dara Wally di di ko ñaanal jàmm di gërëm waawe Soufar Ama Balde nga defaruwaat faalay sa baay bàyyu fii ah eh, en disant Ama Balde lancé ka message moom ak Modou yëpp ñoom ñaar ñëpp wax naa kon ci ñoom laa jëm Ama nga defaruwaat yàlla defal la jàmm Ama lu ma a am ak lu ñu la mën a wax Ama bul gëm loolu lépp ama gaynde nga góor nga àddina day neex tey suba mu naqari ama bu déglu kenn bul xuloo kenn buñ naan la kii moo yàq làmb ji kii moo la sànni lii ku la mën a sànni boo ko gisee baal ko àddina lu waay def rek bis dina jot mu ñëwaat say loxo aama lu waay def rek lu waay rendi sa loxo lay nàcc ku la def lu bon ama na nga ko jéggal te yàlla tax xale nga lu bare ngi say si yoon wi waaw lu bari Modou Lo daan la du du gàcce Modou Lo daan Ama Baldé du gàcce kon Ama yàlla la yàlla defal jàmm waa Pikine ngi sa ginnaaw keroog bi nga nee bërët di def open press xam nga ne Pikine sas nañ la xam nga ne Pikine bëgg nañ la bul déglu kenn bul noonoo kenn xale nga taalib sëñ Saaliw nga waaw na góor góorlu te xam ne lii ñëw ci sa kanam géej la loolu roi des arènes mën nga koo jël kon bul dóolu kenn sa frère Cheikh Bakary Boori balaa ko sekk moo lay wax Modou wax dëgg yàlla am na jom am na ngor am na fulla am na fayda Modou wax dëgg yàlla jab naa ko trop di ko tooñ wax dëgg yàlla mais Modou ku am jom la ku am la ku am fulla la wax dëgg yàlla ndax bi mu daanee ama ba ci suuga daa xëy dem entraînement kon kooku référence la ci entraînement na mbër yëpp entraînement gàllaaj baax na mais entraînement entraînement Modou ku naan takkul takk na waaye lam takk da koo bàyyi ci kër ga te Modou baax na ne xam nga ko bon papis <laughs> papis xare ah. kooku gën a bon Modou baax na papis ma xam naa papis a baaxul moom rek laa la ñooma eh Modou bàyyi woon na gàllaaj moo ko don jox ay fasak ay affaire xam naa papis baaxul waaw kon Modou yàlla na la yàlla defal jàmm Sénégal ñu ngi sa ginnaaw Ama Sénégal ñu sa ginnaaw ñaari doomu Sénégal ngeen waaw da ngeen doon bëre Modou daan na la sa mag la Modou Lo. yàlla na yàlla defal jàmm mais mais Modou amul leneen lu muy préparé combat wala dara. waaw Modou daa waaw Boy Niang. mi ngi <laughs> pare mais ci. yaa ne ma ma wax ñaar ma laa sa message ñaari eh, bëri Modou sama waay la yàlla defal jàmm Modou Lo ah. yàlla la yàlla yokk yàlla nga wér Modou. waaw mais ñu laal si combat boobu tuuti moog Boy Niang. <laughs> Boy Niang je l'aime bien waaw mën na nekk moo ku baax la. mais tax ñu tànn ko Boy Niang. Boy Niang ku baax la maa mi jaax mi jàmm lañ séq. Hmm. fu ma fekk ñu ko fare. koo faral man mbir yëpp samay xarit la. koo faral Sa sama xarit la. <laughs> wala moom noonu la ma sonal magam sonal ma balla. koo faral la kon man mbir ma bëgg. ku ma faral. Modou Lo ak Boy Niang. Modou Lo ak Boy Niang. Ah. kan laa faral. <laughs> ay wax nga bëgg yow. waaye daal Modou maa ngi koy ñaanal jàmm di ñaanal Papis jàmm entraînement euh, ñi encadré Modou Lo yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm waa Parcelles 1 ba 26 yàlla nañu am jàmm yàlla nañu wér waaw léegi balaa may tëj émission bi damay dugg ak si bu mujj bi sànq bi li wax nga bañ ma bàyyi ma wax ko li mujj li may dugg si yow mooy année bi ñu jëm nii année 2024 te ñu ngi nii nekk si 2023 di si waaj génn est que am nga looy préparé am na lu ma lu ah, naa benn génn naa benn son waaw am na benn bu may génn ci décembre moo eh, son yow sa baat <laughs> def naa benn son bu bees mais am na beneen bu may préparé boo xam ne na génn nii nii nii di gërëm Baboy Saw son ban nga génnee yow ministre bu mag bee sa papa nga oyof lool mbokkum ndeyum duudu faramaren waaw Baboy Saw mbokkum ndeyum duudu faramaren mbokkum ndeyum ngi lay gërëm doomu ministre yëpp buñu meloon ne yow ci oyof nga baax nga Baboy jàppaleel sa papa dina baax Baboy maa sa ginnaaw bul tiit mais du ma la ko wax fi mu nii waal rek laa bëgg mu téye bi dux d'or bi may doog a génn dara ci la may gën a neexee non non dama ne la wax na waal rek laa bëgg mu jël dux d'or pare moom rek jeex na ah moo <laughs> réew mi nag kaay wax la benn affaire ku ci xam nga ki la man mm. <laughs> waaw day <laughs> mën a mu ñëw ah, naa la ku ma bëgg la ku bëgg ku bëggul koo doon bëgguma la waal ngay topp mooy sama xarit xam nga topp mooy fant mais dama ne mooy sama nit damaa gis jom ngor fulla ak fit ak am jom ci moom moo tax ma ànd ak moom ak bëgguma ko waaw Sénégal gépp yàlla na yàlla defal jàmm Cheikh Mountakha Bachir moo fi nekkal sëñ Touba yàlla na ko fi yàlla bàyyi maam Limaamu Laay ki ko fi nekkal yàlla ko fi yàlla bàyyi bàyyi Bokkunta Njaasaan ki ko fi nekkal yàlla na fi yàlla bàyyi bàyyi ñas ca kaw ko fi nekkal yàlla ko fi yàlla bàyyi xoolal suñu mbokk catholique sax leen fi nekkal yàlla ko fi yàlla bàyyi ñëpp tarixa yi ñi ma doon seetaan ak bu duggee ñiy seetaan ñi ma bëgg ñi ma bëggul yàlla nañ am jàmm yàlla yàlla defal jàmm Sénégal réewum jàmm la Sénégal bu ñu bàyyee ñett yi lépp lañ koy am bu ñu bàyyee fenalante waxalante bañ nit ki di ko waxal lu ñaaw téesante fen barke Serigne ba Mbacke yàlla dafay wàcce jàmm lépp day am ku fi teg na nga xam ne yàllaa ku fi teg su ko fi jëlee yàllaa ku fi jëlee président Macky ñu ngi koy ñaanal jàmm ak gudd fan keneen ki war a toog bu ñëwee yàlla na ko yàlla defal jàmm ku mën a doon bu dee Sonko ah muy papay Baboy Saw ndax man sax bi sama gént gi papay Baboy la ma jox Baboy Saw waaw papaam loolu la ma jox de ma bi ma xoolee papam laa gis mu sol bu weex waaw man gént <laughs> kontaan naa ci soir bi yëpp seen frère seen doom Cheikh Mbacke Bali Balago Seck xale bu fashion bi moo toogoon nag ah, pël bu ndaw pël bu ndaw bu ndaw ndaw man ku la pël laa yow <laughs> dëgër fit nga dama laa niru pël <laughs> sama kanam dafa niru kanam pël dama dee ah? dama niru yow lu ma wax dara dama la du ma takk. du ma takk fii ko waxee. fii laa ko waxee gisee mariage bi. gan ban mariage. ah xoolal rek. ban xew. du ma takk déedéet man dama duumaan. Ah. <laughs> donc moom frère kontaan naa lool. <laughs> maa la a kontaan xam nga ngay ku baax lool baax baax baax baax xam nga ma woo nga wàcce sa bopp depuis jour boobu ba tey di wax ak man tey jii. ma ñëw jàkkaarloog yow pour la première fois parce que musuma la gis franchement ngay ku baax wàccee sa bopp donc maa ngi lay sant di la gërëm. mais ku la yebal pour nga war a njëkk def. gars yi ni ñu baree nga bëgg ñëw rek am sa première. Euh, euh, waa kër Mour waa kër Mour looy bàyyi leen ma ay waay yaa ngi may woo nii. maa ngi lay waxaale lu ñaaw fii. ndeysaan gis nga li ma doon wax sànq ci Mour Lo ñi ñëpp ay waa këram lañ. ay waa këram lañ ñi ay waa këram lañ. dama ne la Modou bu romboon fii sax nga xam ne dañoo seq lu ne Pape Alioune Ndiaye bëgg ko te ku bëgg sa xarit nga bëgg ko maa ngi nuyu Sénégal gi yëpp kontaan naa yow yaa ma gën mais dama la bëgg laaj. Uh-huh. yow kan moo la njëkk a wax. kan moo la wax demal jëlal Cheikh Mbacke sa premier numéro bi mooy sa premier numéro. mooy sama premier numéro franchement parler te naa si. ah yi niñ bare nga taamu ma. mais Cheikh Mbacke loolu koy def. <laughs> Ah. yàlla ko sama premier numéro. <laughs> maa ngi ñoo koy def laa koy ah. defal te et puis tam naa naa yàlla ni ma ko ma la tànnee. waaw may dem def yeneen numéro nga koy suivre. di ko partagé ah, mais bii du bii du bokk ak benn. xam ki nga jël xam naa ki ma jël. xam nga kan xam nga ki nga jël dama gën a kontaan si jàkkaarloo ma jàkkaarloo ak yow. jeex na kontaan naa lool. kontaan naa malgré xas nga ma bu ma rap mais grawul <laughs> j'assume. kontaan naa <laughs> ñu doon caméra tamit kontaan naa ñoom dañoo xiif gisoo kii waaw mais ki lu muy caméra pare lekk ay mburoog ton. Euh, donc maa ngi gëm maa ngi gërëm sama caméra. ummi. di ànd encore sama maa ummi jënd la mburoog ton de. maa ummi yi lay def. ak yeneen ak daa xiif jukkoom la di gërëm encore naka mon frère aussi ma ñëw en retard et tout nu ñëw takk bagage yi nu ñëw fii ni seet la donc chers téléspectateurs yi fii lañ koy yemale ba beneen yoon ak li ma la bëgg wax bu Wally jëlee Dixi d'or bi ba ca lendeme ba buñ joxee Wally ba ca mhm. li ma bëgg a wax mhm. ak li war a xew dinaa la ko wax mhm. doo ma si ñama tuuti dinaa la ko wax loolu ma la ma koy wax Wally jël Dixi d'or ba téye ko ba téye ko barke Cheikhul Khadim li ma la bëgg wax ah. ak liy xew dinaa la ko wax ah mon frère gërëm naa Sénégal gi yëpp jaa ngeen jëf